صلاة الله ثم السلام ففرها مجد عاشق فيك واميق rek la yàlla ko bind wir loolu am maa siyaare bii nag ma ne suma sañoon mag ñi samp seen i jëf tëral ko nañ ko tërale woon ni kon passé nañ fi bu yàgg siyaare siyaare moo naa gën a ko mu gàmmu te ma koo fekkee siyaare moo doon kongore ñi nga tey ban xew nga dégg ci réew mi benn bàyyi rek moo ko moom tey hmm? bàyyi rek ko moom Touba bés bi ñuy def màggal gi sëñ Touba ku mu ko bokkal moo tax ñëpp di dem bàyyi na ko pourquoi ñu sàggane occasion boobu tey jii fu taalibe mën a nekk ci bitire war ngaa mën a ñëw ndax mooy bési taalibe yi bés bi bàyyi moomu ko taalibe yi ñoo ko moom ñetti kàddu rek moo fi daan am daaru am ñeenteel ñetti fi dajee bàyyi mi siyaare si ngir yàlla moomum moomum ay taalibeem état bi xamuñ njaboot gi ak taalibi seen bopp taalibi xam nañ njiit suñ dajeexee gouvernement bi ñëw wax baay ngi toog mu ne sëriñ bay tontu leen sëriñ bay tontu wax liñ bëgg nangul gouvernement bi liñ indi bu paree bàyyi jeex na ca seede yàlla bu paree bàyyi jeex na ca waxtaan ak taalib mu mel ni taw tawab ceebo xol yi xubbeeku mu taw danga gis ni ñax mi saxe ni gàncax gi saxe ak ni produit yi génnee ci xoli jaami yàlla yi ñu delloo ci yàlla loolu rek la amul leneen amul leneen waaw ah, tey état bii bésab tey bii di siyaare bi taalib bi yëpp bu ñëwoon tey état bi xeble fi lu lu lu Medina Baye wax benn dossier la moom dong la ñu yóbbu ba ca président ñu ne ko Medina lii lañ wax waaye gàmmu Medina gàmmu Ndorong gàmmu keneen gàmmu ñeneen gàmmu lu mat fanweeri gàmmu ci biir lax ndax dañuy jël gàmmu gàmmu mi ne bàyyi teg ko ci mboolem gàmmu yi ne moo moo moo moo leen gën a supérieur dafay am suba gouvernement dañuy jël rek Ibrahima kaay dem ñeseen kii da kaay dem ku ne kaay dem waaw ndax buñ demee kenn ku nekk lañ doléance yañ joxe ndax dañuy ñëw ñu ne ñu ne ñu ne ñii li ñu waxe du dara diw mi mooy dara ndax dañ koy teg ci koom duñ ko def ku de nam la gisee loolu xewalee dégg nga bés bi nañ ko fonk ci la suñ gëdd di feeñee gàmmoo ñëppay gàmmoo délégation fu ne lay dem waaye bokkut ak a tey bi nga xam ne dara yëngatul bàyyi ñett rek moom ko taalibe bi rek moom ko su boobaa lañ war a wax danañ ko wax te suñ ko waxee danañ ko déglu man su yoroon baat bi. فطرها مجد عاشقنا بك